environnement bi. ati ah, ñu dellu soit ci rubrique environnement euh, li ma gis tay ci sujet bi ñuy waxtaanee moy changement climatique euh, xëy na ñenn ñi nga xam ne euh, dinañ koy dégg souvent am na ñu ko comprendre am na ñoo xeyna ne nañ koo comprendre am nga ben reportage bo xam def nga ko ci bala may ñew ci sujet bobu ñu waxtaanee ko ñun ci studio bi dama bëggoon ñu déglu ko et puis ñu dellu soit on écoute changement climatique wala soppeeku jawji di luñu faral di lol jamono yi Moussa Sarr di étudiant master 2 ci walu géographie à université Cheikh Anta Diop bu Dakar jàpp ne waral. résultat de l'activité humaine changement climatique tamit buñ ko euh, dans le monde actuel mun wax des causes d'ordre anthropique parce que c'est l'homme par exemple moy créer avec l'installation des grandes entreprises comme le mala des usines xam nga les feux de brousse Sahara soosu ça joue par exemple sur euh, les causes des changements climatiques. mu am ay jeexital yu bëri ci dund doomu adama ak ci gàncax gi bu ñu sukkandikoo ci Moussa Diédiou di étudiant master 2 ci institut des sciences de l'environnement. tàngoor bi day gën a yokk boo jëlee précipitation tamit précipitation léegi elles ne sont pas régulières nawet bu nga xamante ne euh, fa précoce maanaam balaa mu euh, day commencer tardivement ou bien mu am commencer tôt day am euh, ci biir ay pause yu longues de précipitation boo xoolee tamit ci géej bi géej bi mu ngi gën a ñëw maanaam une élévation du niveau de la mer mer étudiant bi jàpp ni lii moo koy saafara ñuy wàññi xanaa les gaz à alimentaire tout gaz yooyu boo xamante ne day jóge ci voiture yu xaw a màgget ay oto yoo xamante ne dañoo xaw a màgget di saxaar seen saxaar boobu eh, buñ ko mënoon dindi daal euh, koy industrialiser yi tamit ñu wàññi lu ñuy lu ñuy seen industrie yi ndaxte loolu day indi lu ñuy wax toujours gaz à effet de serre bi ndaxte CO2 bi day augmenté ci jaww ji quoi alam gi doon lu am solo ci dundu doomu aadama ba tax na nit ñi di woo nguur gi ñu jël ay matuwaay yu mucc ayib ba xeex soppeeku jaww ji Euh, changement climatique nag ñenn ñi dañuy ni euh, euh, bu sedd bi wala tàngaay bi di dugg si ci la de temps en temps mu des fois et puis à même à lay nuyu da ngay set seetlu que changement climatique bu am Aminata. waaw changement climatique di ci température pluviométrie ak saison comme changement climatique bi moom comme li nga doon wax léegi moy manam euh, tangor gi dañ ci nek en même temps ñu wax tamit ci seddaay bi kenn du xam sax ban période lañ nek hmm. loolu yëpp euh, changement climatique bi di koy indi nag moo am ay euh, cause naturelle am tamit ay cause humaine ci walu hmm. système solaire bi loolu ci ay cause naturelle la loolu non ak tamit volcan yi nga xamantene dañuy dégager parfois ay pollution bu bëree bëri parfois dañ koy gis loolu yëpp di cause Euh, naturel mais li gën a bëri mooy cause humaine yi nga xamante ni mm. ñun doomu aadama yi ñun ñoo koy def mm. lu ci mel ni ci biir reportage bi yaa ngi koy dégg muy wax pollution yi nga xamante ne yi dañ koy def mm-hmm. euh, loolu nag mu nekk loo xamante ni fii rawatina ci Ndakaaru dafa jéggi dayu euh, pollution bi nga xamante ne dafa am dafa jéggi dayu fii sa ku fi romb yaa ngi def sa pollution saxaar si nu mu la neexee te doo amul amul benn xamante ne dinañ la wax bàyyi li ngay def bu wesso lol tamit am tamit feu de brousse moy ala bi nga xamantene dañ koy taal mm, am nuñ koy taalee waaw moy loolu ak tamit déchets yi nga xamantene industrie yu mag tamit mm. ñom ñokoy koy euh, génnee mm. yépp nak di indi li di changement climatique mm-hmm. mu nekk lu doy war lol euh, calze ba taxna war nañ ci mëna jokk ci ni mu gëna mm-hmm. ndax changement climatique nekk na lu jaaxal aduna bi lol bo xolé sax Nations Unies mm-hmm. dañuy amal ay rencontres chaque année di amal ay COP 21 temps la woon bële passé COP 22 ñu ngi koy waajal euh, pays bu nekk di ko recevoir bu ñu amee COP yooyu nag muy rencontre boo xam ne dañuy waxtaane lépp lu ñeel wàllu alam gi euh, tënk ci li nga xam ni moom moo di ay euh, solution waaye à chaque fois tamit dañuy gis ni ba tey des na ndax cause humaine yi parce que def dañ naan cause naturelle loo xam ne suñu borom bi lay jógee loola nit mënu ci dara muy ay mm-hmm. volcan yu mel noonu waaye cause humaine bi ay usine yoo xam ni dañuy nekk implanté wu ci dëkk bi di def ay gaz euh, à effet de serre yi nga xam ni dafay dem direct ci jaww ji di yàq li nga xam ni mooy couche d'ozone bi te couche d'ozone boobu booy xool moo ñuy protéger ci les rayons euh, solaires rayon solaire boobu bu ñu demee ba couche d'ozone bi yàqu ce qui veut que ni amatuñu lenn loo xam ne mooy protéger suñu peau bi mën nañoo indi li nga xam ne mooy ay conséquences yu doy waar ci doo ñun doomu aadama bi bu weesoo loolu tamit day laal li nga xam ne moom moo di géej gi. parce que dañuy gis ni à chaque fois euh, conséquences yi mën na dem ba yenn espèce yu bari léegi daanaka gisatoo leen bu njëkkoon xeeti jën ya amoon daanaka amatul léegi espèce yu baree baree bari bari raar nañu te loolu lépp c'est des causes yi nga xamante ne si moom moo nekk humaine tamit day laal li nga xamante ne si moom moo di wàllug saison bi dafay am li nga xam ni moom moo di léeg-léeg mu xàmmetoo noor xàmmetoo nawet dinañ dem ba daanaka euh, passé juin passé juillet lu yàgg nawet bi di soog a ñëw dem dañuy dem ba dëkk yi di baaw naan ngir ngir ñaan li nga taw taw bi du a ba te loolu ci climatique la parce que saison yi dañuy dañuy dañuy dañuy nawet jamono bi bu heure bi sédd bi commencé ñu jëm décembre mu tollu ci diggu sédd bu loolu lépp daanaka amatul xamé saison yi saison yi dañuy dem ba ci nga gis ab taw ñu taw ëgg des hors saison yoo xam ni day jékki-jékki am te manoon euh, jamono yu noor euh, nawet ca lañ ko daan gis mais jékki-jékki gis ay pluie hors saison am na euh, jamono boo xam ne ab ëgg jaaroon na fi ba daanaka faatoon fi ay jur yu baree baree bari ay doomu aadama sax amoon ci ay jafe-jafe te loolu lépp ci conséquence li nga xam ne moom moo di changement climatique la mu nekk lu doy waar loo xamante ne si jot jot na ñu indi ci li nga xam ne moom moo di ay saafara rawatina oto yi nga xam ni mhm. màgget nañu genn màggetaay gi nañu ci jël li nga xam ne moo di ay solution parce que mhm. li ñuy dégager ci ay euh, po seen pot d'échappement yooyu bokk na ci lii kii yàq li nga xam ne moom moo di jaww ji te ay conséquences rek la ñu mën a jura soxna Aminata waaw conséquences yi ba léegi fii ci Sénégal euh, lu tollook benn mètre at bu jot euh, géej gi dafay avancer ak tamit ressources yi nga xamante ne dafay disparaître te ñu ne ci ndox mi li tax nag li ñu war a def nag ngir xeex lu ni mel changement climatique euh, di soppeku jaww ji nañu éviter pollution yi nga xamantene dañ ko fiy def muy auto yi ak yeneen ñu sensibiliser tamit askan wi wax leen tamit lan moy euh, galancor yi nga xamantene changement climatique mën ko indi ak tamit ñu xex déforestation tamit ñuy euh, tamit jëmbat ay garab ndax garab dafa am solo bu bëree bëri ci dundu doomu adama soxna jomb mu nekk lu am solo lol donte environnemental yi ak ñi nga xamni ni ñoo ci walu wowe à chaque fois ñi ngi sensibiliser waye ba de des na ak rencontre yi nga xam ne ñu ngi koy amal Nations Unies ne nañ fi ay at ci kanam euh, dina ñu gis euh, lu doy waar loo xamante ni si jëm ci wàllu ko coppite yi mm-hmm. te loolu lépp changement climatique ñoom ñoo ko waral mm-hmm. euh, ba tax na kon pays bu ci nekk yow jot na nga xeex ko mm-hmm. pays bu ci nekk jot na nga xeex ko teg sa ay stratégie PM di ay pexe yoo xam ni bu ñu ko tegee xañ na dina daal di wàññeeku waaye fii ak at yi ñu jëm dina nekk lu doy waar ndax géej gi à chaque fois day avancer chaque année dañuy gis géej gi di gën di loole lépp li ko waral bokk na ci li nga xam ne moom moo di kon changement climatique yi mhm. euh, kon mu nekk lu doy waar loo xam ne bombe à retardement la kenn ku ci nekk war nga cee bay sa waar mhm. ñu fexe ba saafara ko ci ni mu gën a gaawee kon ñun ci ñu wàllu ci suñu wàllu dundin euh, war nañoo sóoraale loolu ndax yenn cose yi ñun la Ah, euh, li ci ëpp gis nga ko mi ngi noonu bu ñu nee cause naturelle daanaka bëriwul waaye hmm. cause humaine yi ñoo ëpp fuuf li nga xam ne muy pollution beek muy euh, gaz à effet de serre yi euh, muy géej gi nga xam ne dañuy jël ay usines yu mag a mag a mag jël seeni déchets mboolem lu tukkee ci ay produits toxiques hmm. di ko sànni ci biir géej gi muy rey espèces yu baree baree baree bari bari loolu lépp ci doomu aadama lay tukkee garab yi ñuy gor àll bi nga xam ne ak daay yi faral di am daay yi léeg-léeg nee nañ xañ na lu ci ëpp nit a koy nit a koy créé. waaw daa ab àll xëy tàkk. xëyul xëy tàkk gisoo forêt ama ama amazonienne bee tàkkoon fan yële daanaka ay ay ab diir hmm. wéy na di ko tàkk lu neex def nañu ko ci ay pexe ngir ngir mën a arrêté li nga xam ni moom moo di lakk googee mu nekkoon lu metti kon jàpp nañ ni cause yi lu ci ëpp ëpp ëpp boog ci doomu aadama lay tukkee am na solo euh, Aminata ndax am na ay solution yoo xam ne wala ay yu ñu mën a jël euh, bu Sénégal tamit mu ngi def ay jéego yu bëri bëri mais tamit code yi nga xamante ne dañ ko fee tëral hmm. nañ ko sàmm képp koo xamante ne jaarul ci yoon wala deful noo xamante ni moom la yoon santaane nañ ko tegaat ci yoon mhm. daal jël ay matuwaay yu motom yu bëree bëri tamit daal di reboiser sànq wax naa ko mais nañuy jëmbataat ay garab loolu calse lu baax la ba pare ñu sensibiliser askan wi wax naa ko mhm. askan bi ñu bëree bëri bëri xamuñu lan mooy sax changement climatique mhm. da ngay dégg wax temps de changement climatique bi moo am moo tax ma xaw a feebar mais xamuñu lan ak lan la lan ak lan la moo tax dañ leen a war a sensibiliser ñu xamal leen bu ko defee ñu xam gàllankoor yi ci nekk bu ko defee ñu mën koo moytu c'est important merci beaucoup euh, ñu ngi lay gërëm bu baax baax may fàttaliwaat rubrique environnement bi euh, mën ngeen ko fekkaat suñu page euh, Facebook Booking FM ak fi nga xam ne mooy suñu chaîne YouTube comme tous les mardis donc rendez-vous mardi prochain wala dans 15 jours ci beneen dossier environnement. waaye incha allah beneen rubrique environnement dinañ ci dikkaat ak yéen xool rek lépp loo xamante ne rek soxal na gàncax gi ñu ñu waxtaan ak ci yéen. jërëjëf merci beaucoup Aminata Ba euh, Dior Mbodj ñu ngi lay gërëm. maa ngi lay gërëm bu baax Kalza am mbégte saa su di ànd ak soxna Aminata Ba euh, ci wàllu environnement bi ñu daal di ci jéem a xalaat rek joxe ci euh, suñu xam-xam su néew a waaye tamit fexe daal di proposer li nga xam ne moo di ay solution ñu ànd ko partager fexe rek ba moytu ko saa su ne. rendez-vous ak yow ci midi culture bu soobee yàlla di ngeen ci ànd ak rédaction bu FM.